طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي Saar alu, di société bi yëngatu ci pose aluminium inox ba tey day ay aluminium ak ay assemblage Saar alu am personnel bu mucc ayib taxaw ci jaamu soxla 24 heures sur 24 Saar alu day liggéey tam ay buntu à la française ay porte métallique, ay balcon en aluminium ay rampes d'escalier ay vitrine, armoire. Sar ALU, Defna na ay liggéey yu mucc ayib fii ci Ndakaaru ak yeneen i diwaan ca Ndar Géej waaye itam ca Gossas ak ca dëkk bu tedd bi di Touba Aliou à péage téléphone 33 824 49 97 rahim محا ومحا أمراضي وبرضا تنغاض لي bi rabbi auzu dahra min makrihi wa min jamil aadi ni'ma rabbul wara rabba ilahi ghini maylan ila ghayri murtadan wa jannibni al afat wal takfini xalba mbokk yi janoog ñun noo ngi leen di nuyu te di leen wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi yéen ci seen jataay bu tedd bi ñuy tudde wéttalu koor xam ngeen ni ba koor gi tàmbalee na nga ni noo koy ànd ak yéen amoon nañ fi ay jataay yoo xamee ne ci nii ñoo ko doon séq ak yéen ndax tàmbali woon nañu ak di waxtaan ak ci ngëneelal koor ban ci noppee atte yi topp ci koor def nañ ko yéen ba am ceeg yéen jataay yu xaw a takku xam ngeen ni jataay yooyu jàll am na jataay boo xam ni doon nañ leen tudd ni leen waa alxuraanu karim ci weeru koor la wàcc ba jàngalu leen jenn laaye ñu koy tuddee chahr ramadan allazi unsila fi alquran hudan linnaas wa bayinaatin na huda xam ngeen ni mbokk yi jàmm bu ne bis bi nga xamee ni si nii moom la feeñ jamono ñëw ko ci àddina bu ñëwee léegi lii réew mi xewal mooy danga koy feete léeg-léeg sax nga gis nit ñi di ko feete feetin woo xam ni roy ñu yorul diine lislaam la ah, lu mel ni di taalib sonde la ka wooya ka lu ne dugg ci te xamoo ni am at jeex na ci sa dund tàkk Euh, kon nag doomu aadama yi toll nañ foofu di waajal seen ay ay anniversaire ak xeet yu mel noonu kon nag téere bu mel ni téere bu suñu borom bi weer wu mu wàcc warees na ko bàyyi xel baax a baax xam naa kon tomb yi ñuy jëm ak yéen lu tolloog ñetti tomb ba jëm juróom ci téere bi yàlla bi rek duñ ko génn waxtaanee ko mbokki taalibe yi waxtaanee ko jullit yi ak ngeen mën a ne ñu gën a bàyyi xel alxuraanu karim bu baax a baax ndax mooy téere boo xamee ne si ni sax ku mës a tudd moxtaar njagalal lay wooyee ngir wane ni muy téere bi nga xam dafa jag di jagale moo tax ñuy wax maxtaar njaga kon téere la boo xam ne day jagale borom bi nag tabaaraka la wax na laay yoo xamee ne si ñu fasantikoo lool mbokk yi euh, lay ji ji nee na kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija naas mina zulumaat ila nuur kon li ci jëkk rek te suñu borom leeral ko jaam ñi mooy mooy téere boo xam ni bi mu fi ñëwee rek fekk na nit ñi nekk ci lëndëm mu ñëw fi jëlee leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer ku nekk xam na ni am néeg moom làmp baax na ci waaye ku ne xam na ni booy doxit gis fi ngay teg sa tànkit baax na ci waaye alxuraan dafa ñëw lim doon ci ñun sax ëpp na làmp dinu leeral ndax boo fekk na ku néew doole ki am doole di la noggutu euh, ñaawteef yëpp nit ñi di ko def balaa bari musiba yi bari lëndëm bari lool waaye mooy benn téere boo xamee ne si nii ci téere yi yàlla wàcc ndax xam ngeen ni ci fàttali suñu borom wàcc na lu ma téeméeri téere ak euh, ñu séddale ko ci ay yonant ñii am juróom fukk ñii am fukk ba ci ku mel ni Moussa am benn Isa am benn Daawuda am benn waaye sunu yonant bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam am téere bu ñu tuddee yi bari na lool waaye alfurqaan ci la bokk alquran ci la bokk kitaabullahi ci la bokk muy téere bi yàlla bi moom bi mu ñëwee rek dafa fexe ba nit koo xamee ne si nii dafa nekkoon ci lëndëm nga jóge ci lëndëm ga ñëw ci leer kon loolu lu am am solo la waaye suñu borom yi nee na xat jaakum minallaahi nuurun wa kitaabun mubiin kon alxuraan leer la dib téere bu leer naa ñu jugu fa suñu bi muy wàcc nag ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ni fa mu bàyyi koo ca pays bu tedd ba di pays bu sell ba fa suñu borom ne ci déggub doomu aadama fa mën a yem

atte yi xew euh, jamono fu mu toll alxuraan di wàcc wàcc lu yaatu nga xam ne wàcc na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett yenn ci ñu ni tuddee ulamaul quran di wax ni sax wàcc na ci ñaar fukki at ak ñeent kon loolu li muy tekk mooy alxuraan du téere bu woyof du téere bu ndaw xawlul saxiil wax ju diis la euh, téere boobu nag di alxuraanu karim looloo waral nga gis dongay daara yi di ci sonn ñenn ñi di ko jàng ci ñaar fukki at ñenn ñi ci fukki at am ñuy amum ndimbal ci juróomi at juróom-ñaar loolu lañ ciy dégg rek mooy du téere boo xamee dangay tàmbali tey man ko tey téere la bu diis bari atte bari ay biir bari ay baatin bari wax euh, nga xam ni firi gi sax wóoru daanaka ku ci yàlla déggulul dëgg-dëgg yi dëgg dem ci di ci firi moo tax yenn borom xam yi lëngal sax ni firi gi gënul euh, ñoo ngi ciy waxi wax di ci tudd sëriñ bi ni moom bokkul woon ci ñi nga xamee ne si ni gërëm na ñu koy firi waye lu meuna xew dal alquran tire bu 10 10 la yalla ni khat jaakum illahi nurun wa kitabun mubin waye bim ñewé rek yemul ci dib tire bo xam da ngay tek di mobile di parfum euh, baxna ci lool waye nak yahdi bihi laahu man taba ridwanahu ku ko topp rek mu gëndal la tire la bo xamé ni ci dal ku bëgg juk dang ko euh, te juboo dang ko fe bay waye ku deung te se deung ga nakal te bëgg juk da nga bay alquranul karim waye yahdi bihi man ittaba ridwaanahu subula salaam yooni yiw yëpp ak yooni jàmm yëpp alxuraan moo ci sóobu jàmm ba mu jugee ci naafiq jugee ci rattagaay jugee ci safaan jugee ci yooyu yëpp tegu ci yoonu baax wi waaye wa yaxrujuhum min azulumaat ila nuur bi isnihi ku génne ci lëndëm rek dem ci leer rek suñu borom la neex waaye mi ngi ko jaarale ci alxuraanu karim waaye nag ku ngeen fi gis mu tegu ci siraatu mustaqim ci waxam ci jëfëm ci jëflantem ci kàddoom ci leppam teggu ci ba ko gis xamni ku jub te ab jam lu mëna am ci kaw suuf te jubul loolu daanaka lu koy sonal lay doon ci aduna ak ci alakhirah motax muy ni wa yahdihim ila siratil mustaqim wa di téere bo xamé ni ci nag dara bayiwul dara bayiwul dara sunu jëflante sunu dugg-dugg sunu aduna ak sunu barsaax ak sunu yowmal qiyam ak sunu lepp leral nako soppé bu tedd ba ci madinatul munawar alayhi salatu wassalam musna wax ni alquran ji seen xibaar mi ngi ci yéen nit ñi xibaarum ñi leen jiitu ñoo ngi ci xibaarum ñii ñëw mi ngi ci waaye dana àtt seen diggante kon mooy téere boo xam ne dafa mat ci wet yëpp suñu borom ni maa faratnaa fil kitaab min shay'in summa ilaa rabbihim yahsharuun kere bi ci ngën gi mbindéef alayhi salaatu wasalaam boobu daa fekk waa Màkka taaxuraan wax way lu jiitu sax yonent bi am na ay marché yoo xam ne daa am comme nii marché hebdomadaire di am ci sunum pénc léegi borom xam-xam yi ak xutabaaw yi ak waxkat yi dañ daan daje ku gën a rafet la xasida ku gën a rafet yi wax bu ko defee ngay am puy ñu lay neexal waaye bi alxuraan wàccee rek dafa dem loo ñëpp شيخ القديم نانا حتى أتى بكتاب أعجز البلغاء وكل عن مثله أول الفصاحة بالقرآن وعجرة كل واحد أقلو ما نون دوا أقلو ما نون دوان بدم غا لطنا ما نقول القرآن بمن يعلم دي كريف موي دا دفلي يتود دك دك مم لا ولا في واحد خمنا بني تتوبا مجول مجول وينجيل جيل ما مم لا يتود لي واي مم ولا في دك ما يكون من نعم نادف نقص القرآن لمجك واحد mooy dañu ku mën a indi fukki saar alxuraan lim toll lépp waxuma sax ngeen indi lépp waaye ku mën a indi fukki saar rek na wax am ñoo xam tëju woon nañ ci néeg di jéem a bind ñenn ñi tëju nañ fukki weer ñaar bën leen ubbee ay këyit képp moo leen wër ñuy bind di xotti rek xam ni lu mel ni alxuraan ab jaam lot na ci mën ko indi xol faatu bien si suurin mislihi muftarayatin wadduhu man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku mën la indi yàlla dem ak ñoom ba jàng mu leen bu fekkee fukki saar dafa ëpp ci yéen indi leen wenn saar wenn saar ba nëgëni am na ñoo xam sax doon nañ jéem a topp di indi ku mel ni eh, kin daa tuddee rahmaanul yamaaniin muy musaylimatul kasaab daana jéem a fent alxuraani boppam waaye saa bu ko musaani wax nit ñi dañ koy ree ba dootu xam lu muy def yàlla na leen xul faatu bi suurati mislihi wadu man istataatum min duunillaahi bu fekkee am na ku leen leen mën a dimbali dëgëral leen ba ngeen indi wenn saar indi leen woowu saar waaye yàlla sax dem naa ñoom ba leen ku mën a indi benn aaya na ko indi waaye fu mu leen tënke mooy nit ak jinne ak li mu bind lépp bu mu dajaloo woon bëgg a lu mel ne alquraanu karim boobu téere du mën a ne xul nañ tamaata insu wal jinnu ala an yaatu bi misli haza alquran laa yaatuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin zahira kon muy téere boo xamee ni si nii lottal na doomu aadama yëpp lottal na mbindeef yëpp waaye li ko fi tax a mooy jëlee ni ci lëndëm indi ñu ak jubadikoo ak noo ak neewante doole nek ci benno, kon lolu moy tom bu jekk bi inshallah karim kon xam nga ni téré bi dafa ñew ngir jagal nu ngir baxal nu waye sun borom yi dekk ni nit ñi kenn mënta lu karim kon tom yii di ñew inshallah allahu karim des na bëgg ak yeen ci ngëneelal alquranu karim yalla yalla nangu seen koor te nangu sun koor te barkel leen te barkel na leen seen bakkar te ñu bakkar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil rabil alamin bala noo bàyyi dunu noppi di ñaanal suñu bokk yu baax yi ñu àndal muy waa Kajoor entertainment ci liggéey bu rafet bi ak seen fonk diine ak seen bëgg lu baax ban dara raw leen ci koor gi ñu defal jataay yu am solo yi muy wétalu koor di ci wét leen teeg yéen yàlla yàlla sàmm leen te dërëm leen tànk ci loolu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu subaak jaam insha allahul karim طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي Saar Alu, di société bi yëngatu ci pose aluminium inox ba tey day liggéey ay pièces aluminium ak ay assemblage Saar alu am personnel bu mucc ayib taxaw ci jaamu soxla 24 heures sur 24 Saar Alu day liggéey tam ay à la française ay portes métalliques ay balcons en aluminium ay rampes d'escalier ay vitrines armoires Sar ALU DEFNA ay AYIP yu muccu ayib fi ci Ndakaaru ak yeneen ni diwaan ca Ndar de itam ca ak bi di Touba Sar alu, mu ngi ca Pikine sorti sorti autoroute à péage téléphone 33 824 49 97